bokkoon ci ak Bala Mansa Thiam moom nag niki démb ci talaata rek la ñu daal di gis nag ab néewam ci appartement boo xamante ne rek ma nga nekk ca Pikine Technopole bu ñu sukkandikoo ci l'observateur mi joxe boobulee xibaar nag bi ñu gisee rek ay policier fees del nag ca boobulee quartier rek ci la dëkkandoor yi daal di commencé rek di am ay xel ñaar ginnaaw nag xibaar yi nga xamante ne rek jot nañ ko am nag ci la ñu daal di dëggal que ne autorité ci seen jëm bopp daal nañu gis nag ñaari néew ci boobulee appartement nga xamante ne rek ci deuxième étage la ci benn immeuble bu ñu sukkandikoo nag ci le quotidien mi joxe boobu lee xibaar nag ne na daal dañoo daal di gis ab néew ci biir salle de bain bi ba noppi rek gisaat beneen néew bi nag ci salon bi ñu daal di koy muur mu nekk nag ñaari néew yoo xamante ne rek jot nañ ko fa gis jamono ji nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy enquêteurs yi daal dinañu ubbi enquête ginnaaw bu ñu gisee ne rek porte principal bu appartement boobu dafa daal di woon tëju ñu daal di koy caabi porte chambre bi ci jëmmi boppam nag dafa daal di woon tëju jamono ji ñuy wax nag kenn xamul rek lan moo waral ñaari doomu aadama yooyu ñàkk seen bakkan mu nekk nag ñaari néew yoo xamante ne rek daal di nañu koy nemmeeku laaj bi samp nag moo di ne est-ce que ab xeex amul fa woon waaye nag ak lépp lu mu ci ti doon nag jamono ji nag ab enquête ñu ngi ko cay ubbi rek ngir indi ci ay leeral bu ñu sukkandikoo ci l'observateur ak groupe euh, Futurs Médias bi nga xamante ne daal dinay joxe boobu lee xibaar euh, ba tey rek ci mbir moom la ñuy daal di desani ginnaaw témoignage yi nga xamante ne rek daal nañ koy def ci génn àddina feccikat bi di Aziz Dabala ñu daal di koy xam ci caractère bi nga xamante ne am na ci talent bi waaye nag mu nekk koo xamante ne rek ku mu li muy def la jamono ji nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo doon collaboré ak ñoom daal na ñuy ñàkk nag ku ci mel ni Penda Guissé daal dina ci yëkkati kàddoom rek ginnaaw rek bu mu révélé nag ci tiktokam ki nekk Aziz Dabala moom ci jëmi boppam rek amaloon na ab tournée clip ak kii di Demba Guissé moom rakkam bi ci ab vidéo boo xamante ne rek ne nañ nag ci fii ak fan rek dina génn jamono ji ñuy wax nag ñi nga xamante ne daal ñoom ñooy mbokk artistes yi ña ngay di rek sëngeem ak seeni naqar ginnaaw nag bi nu partagé souvenirs yi nga xamante ne rek moom mu leen gën a marqué